grand théâtre lay amee ak euh, suñu rakk ji nga xam ni euh, tey dafa ñëw euh, ndékki ak ñun ci télévision Futur Média muy Ndiogo Afia ñu ngi lay nuyu Baye Fall bi kontaan ci sa teewaay wax naa ko keroog wax naa ko sànq keroog jàkkaarloo nga ak El bay Mbaye Garmi Sénégal yëpp dégg waaye tey itam baax na nga ñëw fàttaliwaat Sénégalais yi li ñuy waaj samedi ca grand théâtre ñu bàyyi la d'abord nga nuyoo ak suñu xarit ci nga xam ne ñoo xëy di ñu seetaan Ndiogo Euh, jërëjëf Serigne Touba. Mm. jaraam maam Cheikh Ibra Fall. est-ce que Serigne Afia Mbacke Falilu. Mm. ñu ngi ziare Serigne Mountakha. di ziar Serigne Abou Falilu. di mm-hmm. ziar Serigne Cheikh Jëmm Fall. di ziar Serigne Abdou Samad Mbacke di ziar suma Serigne suma yaakaar teeg ëllëg. Mm. Serigne Baara Mbacke Afia di ziar ñi ñuy seetaan ñëpp. Mm-hmm. di la ziar bëgg fàllu mm-hmm. ndax bariwul lu ma lay wax Baye Cheikh. bëgg fàllu laa lay wax. te loolu du tey. tax yàgg na mm-hmm. di ziar soxna nana laaj Modou Mbaye Garmi mm-hmm. ex ak oustaz suma xarit di leen wax ne daal. yàlla na ñëpp am aafiya daal. amiin amiin amiin amiin amiin foo toll ci euh, waajtaay bi Exidex ku ne xam na ni euh, organiser guddi dafa metti surtout pour euh, ku mel ni moom nga nekk xale te ñëpp fonk la li ma ko ne démb yenn saa sax da ngay foog ni mooy loolu waaye Sénégal yëpp la bëgg. te dëgg dëgg de la de ki nga doon danga am taalibe loolu moom marqué sénégalais yi ci njóogu aafiya fan nga toll. toll ci organisation bi. waaw organisation moom comme li nga wax rek métti na mais. Mhm. defe naa loo liggéey ay presque set mois ba mu des deux jours. mën mhm. euh, nañ ne da ngay xam ne jeex na. métti mhm. na moom ci ci ci côté yëpp. métti na ci côté ku ne xam ne ne Grand Théâtre dafa laaj. Euh, xaalis bu bari. Mhm. parce que du ñëw rek defi cant. programme la. programme la da ngay fay organisation lumière la salle la tout ça waay waay. te yiñ jot fay yëpp bi ci gën a yomb. Mhm. un million la. macha allah te un million boobu sax. Mhm. nit ki dalay xam moo tax. kon ay millions yu bari la. wallaahi wallaahi. Euh, waaye it ñu ngi sant sëñ Fallou. sëñ Fallou. ndax. Euh, lu toll ni grand théâtre démb rek sam benn xarit Mohamed Afia Couture. Mhm. moo ñëw sax li ma sol nii. Mhm. ci guddi gi mi ngi mën a man daal dama tiit ma ne ko lu tax. Mhm. mu ne ma da nga jël grand théâtre ba pare toog dal. ma ne ko waaw parce que du man sëñ Fallou la. Mm. man ba ma ko waxee ay weer ci ginnaaw li ma la laaj mooy grand théâtre nga jëm. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que xaw ma voilà. waaw dama grand théâtre rëy na de. wallaahi rëy na kay <laughs> ah. may la Baye Cheikh bul fàtte ki ñu àndal. nga ne ma wax dëgg wallaahi moo jaar nga ne ma ku ànd ak ki ñu àndal. lu la <laughs> neex laaj loolu dëgg la. métti na ci côté yëpp mais ñi ngi sant. Mm-hmm. ndax euh, pour man ni mu doon gën a méttee mooy ñu jël grand théâtre. Mm-hmm. Euh, sëriñ bi Euh, bañ ñoo dimbalee ab dal mm-hmm. ba nga xam ne dalay jaral guddeeg bëccëg ngay daw mm-hmm. di mm-hmm. wëri kii di wëri kii di wëri kii di wëri kii mais booba tey daal ñu ngi dal ànd ak sëñ Fallou di répété jaami yàlla yi di ko waaj ñu ne ci booba tey nag am na ku baax muy El Hadj Soxna Baye Fall koo xam ne bañ tàmbalee ba tey wax dëgg yàlla mu ngi sunu ginnaaw di defagum na ci moom it ay millions yu bari. Mhm. beneen bi it ci métti bu muy métti xëy na mooy ci soppe yi. Mhm. ndax bëgg dafa yéeme. Mhm. bëgg dafa dafa yéeme fu mu toll nii. képp kuy soppee njóogu Afia gëj nga am dal. tant que bés bi jàllul. Hmm, fi mu ne ñëpp a yëngu. waaw dafa yëngu wallaahi léeg-léeg nga gis message boo xam ne da ngay xam ne rek. Hmm. am na bés boo xam ne dama fay sama. waaw sa yaram dafay daw. waaw da gis ku lay message. Hmm. ay njóogu grand théâtre bi yàlla na ko daal di. ñaan kii ay njóogu. ndeysaan ndeysaan wala ñii ndeysaan ku ci nekk. waaw mais ñu leen di wax rek. képp kuy soppee njóogaa fii na dal. naan ci café gi. bëggee te xam ne. voilà te xam ni teel a ñëw rek dañ leen sant euh, mm-hmm. samedi euh, ndax mise en place bi 19h la mm-hmm. euh, di ngeen gis nag lu uute ak li ngeen di gis d'habitude ci ñoom ca grand mm-hmm. loolu xam naa dinañ ci ñëw bu ca kanamee waaye élage bu weesoo sëñ bi nga xam ni suñu yaakaar tey ëllëg suñu sang yi la li ma naan Assane ñun ñëpp ñoo bokk yoon muy fa yàlla waaye kenn ku ne am na ci ko wóolu moom nag mu weeru ci njabootu sëñ Fallou ci njabootu Cheikhul Xadim waaye ay waajuram itam waajur dafa am solo euh, ci doom El man bay Garmi euh, bëggoon naa ñu euh, déglu ay témoignages yoo xam ni def nañu ko ci Ndiogu Afia mi nekk ci fii tey ci télévision. fii ci ba da ngaa dem sama kër. ñu xool. icône du mooy denc sama doom yaru na baax na respecté na nit ñi famille bi yëg na ñëpp. ginna sama famille doom ñëpp ko bëgg ndax yaruteem rek moo ko may yaruteem rek moo ko may damay ñaan nag bés bii mu dëppal nii yal na ko yàlla ak yonent bi sëñ Fallou jàppale ak sama sëriñ ba sëñ Moustapha. Njóogu ba mu nekkee xale bu ndaw. yooyu yéen xamu leen ko sax xëy na dafa nekk xale bu ndaw di yenu glace di ko jaayal yaay marsiti leen di yenu ay crème di ko jaayal ji yaay marsiti leen njoogu rakkam yi yëpp moom moo leen boot comme jigéen lu yaayam bëgg la bëgg lu ye neexul yaayam neexu ko lépp loo xamante ne bi njoogu téye na ko ndeyam a tax lu mu bàyyi ndeyam a tax kon am na yo cër yoo xam ne boo ko mayee sa wajur foog yàlla da lay yi amul kenn koo xam ne ci famille bi di nga wax ne njóogu moom a tooñ wala moo ma wax lii wala njóogu vraiment moo ñu gàcceel fii moo yiwadi wala nangam njóogu yaru na baax na tey na xàmmee na ay eneem kum ci gis dina la jox cër ñëpp nekk bokk ceeyam ba pare silwi si na set na yaakaar naa ne daal li ñuy wax ne daal ah man nag damay sagu ndax moom di tiitaru ndax wax dëgg yàlla dañ ne turandoo dina jël juróom-ñaari jikko ci turandoom waaye kon njóogu népp ni mu mel ni ba nit ñi di ko tudd man dama naan ah kon xanaa kon man noonu maa mel noonu. nit doon nañu engagé cantaloo ñu ñu noppi sax mu war ñu jox ne amul ma jox la ci benn euh, bu ndaw rek boo xam ni dal nañu njaareem cant nañ ba noppi waa ji ne amul. ñoo ngi doxee ci ville bi ba daanaka usine Sonacos yooyu yëpp daanaka daj nañ ko ci liggéey bi. googu nag ak bëggam ak gëm-gëmam ci liggéey bi euh, foo ko natt weesu na ko euh, tubaab naan euh, ambition am na si objectif am na si but kon tey jii ci yëfi doxe ba ñuy wax waxu grand théâtre daanaka ñi nga xam ni fekk nañ tàmbali ba bu egsee fii du leen bett. li mu song ni yàlla na ko daan ñaan bu baax a baax a baax a baax ndax njóogu xale bu baax la bu bu bu respectueux la. bu bu bu fonk nit la waaw ni mu fonkee ni ci biir kër gi noonu la fonkee mbedd meeg ñëpp waaw am na yar am na teggin te defe naa ne yar moom boo ko amee rek mën nga dem fa sori waaw te moom li muy boole li muy def daf ci boole yar waaw bëgg sëñ Fallou ba mu jeex kon nag mën na mën na dem fa sore sore sore sore waaw ñu ngi koy ñaanal daal grand théâtre bi yàlla na ci am doom yàlla na ci am ndam yàlla nañ ko fekkee te tal ko ba weesu ko mu am ci ndam bu kawe njortam waaw loolu da lañ koy ñaanal waaw ndax uh, yaayam ñaanal na ko baayam ñaanal na ko ay nijaayam nijaayam moo doon wax ni léegi ñëpp daal kontaan nañ ci moom waaw am na yar am na jàmm moom fu mu nekk sax kenn du ñëpp man dama koy toñjeen saa yi ni ko boo boo boo sikkarul woon comédien ngay doon. l'icône du Zikr. Baye Fall aye. walaay ni Baye Fall yi ay eh, eh, munoo def dara nag eh, te say mbokk duñ ci ànd ak yow El Hadj Ousmane Mbaye Garmi ay mbokkam wax nañu ay gorom wax. Hmm. xam nga Baye Cheikh dafa am loo xam ne lii mënoo koo def ba pare di am leneen. Hmm. li ma li wax ji réy réy li ma ci ràññee mooy fonk mu fonk ndayam hmm. ci bas âge. di boot boot xale yi ay rakam. jaay jaayi crème glace. dama ne loolu boo ko il faut nga am bonheur. Mhm. Baye Cheikh. il faut nga am ndam waajur dafa fort. wallaahi soo ko jëfelee yàlla moo lay fay. Mhm. moo tax léeg-léeg nit tab bi ci nit di ko xeex ci dara moo cay daanu. dëgg parce que fekk na kooku defal ne waajuram loo xam ne gàcce du ko gis. Mhm. boo ko séenoo ci moom yaay am gàcce waaye gàcce du ko bay laa yu mi diini. loolu nag moo dal njóobu afiya ba pare nag moo ànd ak koo xam ne ki day génn waay. Mhm. Sidi Fallilu. wallaahi kooku génn waay la. wallaahi wallaahi loolu rek doy na. wallaahi moo tax dëgg dëgg Grand Théâtre man de xam naa ne. Euh. Euh, trajet bi jëm ci rek laa doon mhm. xalaat. Mhm. waaye tabbi ca moom wax dëgg yàlla. ba pare dafa tombé weeru rajab. billaay billaay weeru rajab ko rajab moom. kenn mënu ko wax te waxoon sëñ Mouhamadou Fall. déedéet déedéet déedéet borom kazu rajab. waaw kazu rajab. xam nga loolu rek ça veut tout dire. xam nga dafa am muy weeru baraxlu. dafa am ngëneel yoo xam ne. suñu borom subhaanahu wa taala daf ko yor. Mhm. di ko décentraliser. Mhm. Pape wax na ko léegi. Mhm. ñu ñëpp ñoo bokk fu ñu jëm. mais yoon yee wuute. dafa am tey jii bu ñëpp xëyoon di dem si sëñ Muntaxa. amaana euh, taalibeem bi di sëñ Joogu Afia. wala man mii wala Pape Cheikh mii. du mën a yegg si moom. mais dafa jaaf ñii jaar nii. ñii jaar nii ñii jaar ni ñii jaar nii. xam nga tey jii da ngay ñëw Sénégal. Hmm. vol bi jógee Casablanca. dëgg la bi jógee Paris bi hmm. jógee New York. mais yëpp aéroport ak Blaise Diagne la ñuy wàcc. te yoon yi bokkul. kon li hmm. am mooy ñu xam li nga xamante ni moom la ñu yàlla may te nga wax ko léegi def si bokk nag Serigne Sëñ Fallou. radiyallahu taala anhu nga xam ne beneen dimension la. am sam benn cousin bu ma nettali lu doy. yonent bi di ñaan. mu gane si àddina looloo waral kasu rajab ah, da ngay am ndam de Muhammad Muhammad ah, Muhammadul Fadil Muhammadul Fadil yaa koy wax Serigne Touba neex na neex Tawlo Moustapha Carlo Mourina ñëpp ci Seydouna Muhammad sama sëriñ ñëw sallallahu alayhi wa sallam nga gis mu ne dafa dem Touba daja fa xam naa benn waay bu def mel ni Pape Cheikh rek waa tafu ko. faasam ah. xaw ma deux mille mille huit cent. man taalibe bu neex laa sama sëriñ dama koy tàggu quinze fois day mujj ne ma ñibbil nag. <laughs> Omar Sall eh, nekk fii point. mu ne ko maa ngi nuyu Yoff laa jóge ñëw ba Touba sama paasu retour tafu nañ ma ko. maa ngi nuyu yoruma dërëm. boo ma seetaanee nag te yow yaa ma taxoon ñëw. Hmm. damay dox. <laughs> wala ma yalwaan <laughs> te gor laa. nee na mu jóg fekk wallaahi nee na mu jóg fekk fi mu jógee di gestu. Mm-hmm. gis 1800 tegu. mi ngi woon nii. déedéet gis 1800 tegu mu jël ne dafa nekkal yi mooy am jàmm am de. Mm-hmm. kooku kooku moom mooy wajuru Serigne Soxna <laughs> May Galas. bu ko siy ndokkeel bu baax a baax. ak njabootu Serigne Touba gi. Eh, ndax eh, gar mi. Mm-hmm. ñi taar lañ si réew mi. wallahi am leen. moo gën ñàkk leen. wallaahi yàlla ñu leen yàlla fayal wallaahi amiin amiin foofu Baye Cheikh. Uh-huh, uh-huh. liñ ci wax rek mooy. Euh, remercier famille bi. defe naa ni ma déggee wax ji man ñett laa ci dégg mooy euh, mooy yar ak euh, fonk sa waajur ak fonk sa sëriñ mm-hmm. sëñ Tuubaa daan wax ne xale yi na ngeen leen jàngal ba pare yar mm-hmm. bu ñaari mënta daje na bi ñàkk ngeen yar leen mm-hmm. tey rek ñu jàpp ne ku tariwul ay saar wala yooyu rek ku baax nga yar man yar laa gëm mooy base suñ tubaa nee na sama kër gi ku fi jël yar bàyyi woo fi dara ku fi bàyyi yar jële woo fi dara mhm. beneen bi moom waajur moom amul masla ala kul yàlla waajur moom kenn du ko maslaawee man moom ñun suñu waajur la mhm. xëy na li ñu yàlla nattu sax ñu ñàkk suñu bàyyi mu dem moo tax mhm. suñu sago dañ leen ni dañuy fekkee bi may dem di wër di jaayal sama yaay ndox tamit bu doon tey dama koy def parce ko doon def sans gêne mu ko doon def sans gêne am na samay xarit yoo xam ne xëy na daan daan daan mujj gi dañ daan rusa àndam man sax mujj gi ndugg ndugg yi jigéen ñi di toggee li ma ci ump bariwul parce dam dama ko ko doon jaayal am ñoo xam dañ doon ruus suñu toog ñu may seetaan beneen bi aw ma ci woon maslaa koo mënti doon koo mënti doon su ma xamee ne yow mii yow ak sama yaay ne leen damay xuloog yow kon nga yeey waaye hmm. ni ba taay. moom ah. xam nga bi may bi may bi may mhm. may mën togg. boobu 14 ans laa am. Mhm. parce que boobu day daw di jàngale ji bëgg ko booleeg jaay. Mhm. bëgg ko booleeg togg. guddi gi parfois day teg fóot di fóot ma ci moom ñuy togg ba fajar ba mu des sóor ñu ñu dëpp bu xëyee dem jàngale ji. ma dallu ma xëyee nettoyé suur ñu xewalu beneen bi bëgg sëñ Fallou man judduma sax fekk sama baay jébbalu dama judd fekk sama baay nekk taalib ma Abdou Aziz nekk ay alkaati ñu dëkk moo àndoon ak sama papa waaw c'est tous vokora euh, ànd ak papa ñoom Pape Cheikh ñu bokk mm-hmm. daay mm-hmm. mais man bi may bëgg sëñ Touba xaw ma sax ban jour la mm-hmm. sama bëgg boobu moo tax ma jël sikar si ba ko yóbbu fu sori te sama koy wax gars yi may leen bu doon alal rek dama naan sama waajur bu góor takk der nga am nga connaissance dugal ma fenn. dëgg la au compte ba na ma fu bari sax. Mhm. sikar si day tax du ma mën dem. Mhm. bu doon leneen dama naan sama yaay enseignante nga. nañ ma former ma dem. Mhm. man man liggéey Sëñ Tuubaa laa bëgg. macha allah te jàpp naa ne li ma doon gis ci mbedd yi. mooy mbiru cant. dama jàppoon na rek. am na lu bari luñ ci war a def. Mhm. xëy na yéene boobu la yàlla tombé. Mhm. ñuy dem ba affaire bi gën a am jëm. Mhm. kon képp kuy soppee njóogu affaire na nga xam ne. ñett fexeel mu daje ci yow. mooy yar. am sa ngërëmal waajur. ba pare sëriñ bi la yàlla booleel nga fonk ko. dala waay. alxuraan rek la fi wax Pape Cheikh. ndax boo jëlee yar bi mu wax. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla njëkkee wax iqra. Mm. du mënul woon du ko analphabète la woon. mënul woon lire. jàng adduna dafa am solo am yar mm-hmm. mu teg si ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi mm-hmm. sama borom moo a yar mm-hmm. moo tax sama yarin rafet rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam nga lu tax bi may wax loolu sax waxuma pour lu jëm si njóobu parce que lenn rek moo yitteel mooy gën a wane man boog li ma yitteel mooy gën a wane sëriñ Afia aw ma beneen yitte pour nit gis na mais li tax ñuy wax mooy dafa am benn bés euh, ñu am ci jàng yu mag suñu buntu kër. ñu mhm. bari dañuy ñëw. ma sama rakk yi sikkar sikkar ba yenn heure yi ma génn. Mhm. barkeelu tuuti daal ne na ñëpp toog ñu toog may leen fonk leen seen waajur yi. ñu mhm. gis ku yaayam xaw am handicap mu rus a ànd ak moom wallaahi. wallaahi. ñu xëy suba mag woo ma ba ma ñëw ne ma bi ngay wax démb ma ne ma ne ma da nga xam diw ma ne ko xam naa ko ñoo dëkk mu ne xanaa da xam lu ñuy dund ak yaayam. ma ne ko barki sëñ Fallou déedéet. mu ne ma yaayam moo ma ne kii dama ko mere. ndax day rus wax ne maa yaayam. ndax mënu wax. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax mënul wax mënul wax. Mm-hmm. ba mu ba mu am kersa wu ànd ak ànd ak ànd wane wane yaayam muy li mu wax mhm. Mhm. yàlla yonent sallallahu alayhi wasallam ne bu way jur bëggee mhm. yàlla bëgg bu way jur meree yàlla yàlla mer ala kulli àll waaw day merum yàlla yàlla ñu si yàlla musal amin amin beneen bi mooy fi mu tëji mooy li nga wax léegi muy fonk kilifa dafa am loo xamante ni maanaam fonk sa kilifa maanaam si sëriñ yàlla moo ne yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila loolu gëm yàlla ragal leen ko bu leen jokkale ak loolu sax bokk na ci euh, euh, thème mu euh, guddeem gi ren Euh, samedi bi lay am ca Grand Théâtre waaye ku ne xam ne ni euh, euh, Cheikhul Khadim Serigne Mountakha mooy xalifaam Serigne Fallou Serigne Abo mooy xalifaam waaye Serigne Afia Mbacké Serigne Baara Afia mooy xalifaam. Baye Afia ak Ndiogu moom hmm, daanaka li ci li ci xam ci diggante mujjat ak sëñ bi ci xam lu bari bi sëñ bi waaj wàcc ci laa ci xam lu bëree bëri ndax daanaka njóogu xamante woon nan daa nañ gisante waaye taxul woon ñu jaxasoo yenn jaxasoo yi waaye dama daan gis jëf yi daan jëf sama diggante ak sama waaju ndax man kat nit boo bëggee sama waaju sama kilifa akoo man doon dama lay bëgg te sëñ bi tegoon na ko foo xam ne nii moom njóogu ci boppam lu ma woon sëñ bi la waaye du ak njàmbaaram du xarañam du lennam sëñ bi ko bëggaloon bokk moom it muy koo xam ne ni daa gumba taxlu ci sëñ bi koo xam ne ni nag sa sëriñ moo sa bëgg yow lu la metti te nga di taalibe donc moom gis naa ko ci moom ci diggante moom sëñ bi te seen diggante moom ak sëñ du ma ci wax lenn loo xam ne nii lu ma leerul la wala lu ma xamul ndax kenn jaralu ma ko parce que ñaar fi dong laa yaakaar waaw kon moom am na ngërëmal sa ñaar li tax mu am ko mu di daa fonk ay waajuram fonk kooku mu fonk waajuram moo tax mu fonk sa ñaar te man ku fonk sama waajur kat damay xam ni fonk nga say waajur moo tax nga fonk sama waajur te moom la am mooy sama waajur bi si topp mu di am ngërëmal sëriñ dafa yomb te moom laata sëñ Afia di génn gërëm na ko ba tàyyi gërëm ko gërëmaat ko te li ma gën a marqué sama diggante ak moom li tax ma téye ko mu di dafa daj sama waajur loo xam ne mu ko fekk xoolu lu ko neex xoolu lu naqari te moom ci ñi mujjee gis sëñ bi ci la bokk moom ci ñu mujjee gis signal ci moom ci la bokk bu ko sëñ bi fayee mm, du ñekkeen de ak commande waa ci yoon bi diggante bi nga xam ne sëñ bi mi ngi ci taal bi ni ma jaxasoo ak Njoogu koo jaxasoo te sëñ bi mi ngi doon gis lépp waaw di xoolit di gisit yu bari bañ naa ba su ma daan génn moo ma génnee damay woo Njoogu ni ko xoolal ma xoolal ma bu ma génnee dem fen moom laay woon ko demal xoolal ma xoolal ma lii ak xoolal ma lii bañ nañ ko ba yu bëree bëri yoo xam ne nii dañ koo war a def moom laay woon ko defal ma lii kon sëñ bi mu ngi doon boole ci fànn yëpp la mu jàppe woon sama waajur rek la ma jàpp bët ba mu ko doon xoolee rek la may xoolee ndax ñi toppoon Seexul Xadim ba fi Seexul Xadim nekkatu si zaahir Cheikh Modou Moustapha la ñu jël lépp di ko xoolee Xaadimul Xaadim te mu mate ko sëkkit nag njoogu day ba nu gisatul sëñ bi si saayal ba léegi du def loo xam ne nii ump na du wax lu ma ump rajo sax buñ ko fa invité damay woo ni ma sëñ bi kat dañ maa invité rajo tam loolu mënoon naa ñàkk waaye noonu la daan defal sëñ Afe noonu la doon dox sëñ bi kon bu ko doxee ak man wàcc na yàlla suñu borom mi dara tëwul nag njoogu affaire bi mu xewlee bés bi ku tedd ki soññee na ci ndeysaan nee na kull ku yaakaar Serigne Afia ak soppee ñëpp rek ku ci teew rek ñaan na Serigne Afia ba am ngërëmal Serigne Afia Mbacké ak waajkaayu maanaam Kazu Rajab gi li ngay yaakaar ci Kazu Rajab suñu borom defal la ci tawféex l'icône du zikr Baye aye moo tax kenn du euh, fàtte keroog euh, bi ñu la invité ci émission bu mag boobu boobule di tabala euh, teewaayu Serigne Afia Sénégal yëpp a ngi koy fàttali xam naa ni fi mu ne wax sax dina la jafe ci ay jooy ak sentiment boo xam ni moom nga yëg gis nga ko ak sa digganteek say Serigne sa digganteeg say sang sa digganteeg njabootu Serigne Fallou sa digganteeg njabootu Cheikhul Khadim ak sa digganteeg njabootu Serigne Afia muy ay témoignages yu bëri yoo xamante ni am nañu ko ci bis bi ñu dëgmal samedi lay doon. woon ca Grand Théâtre may la rek nga fomp fomp say rongañ balaa ngaa gën a daanu leer ndax xam na xam ñun taalibe yi dañoo xaw a ëppal nag ñun dañuy daanu bërëngu mbëkk yenn saa yi ñu jooy waaye suñu sëriñ yee ñu ko jaral euh, ndax ku ne am na ku la jaral ba nga jébbalu euh, ngir waxtaanee euh, li des ci bis bi ak thème yi nga xam ni tànn nga ko dañuy pause ànd ak beuru bocage mi alfito